sey dugala loolee ak yàq la mënoon nañu jël milliards yi ngir nag man see saafara jafe-jafe yi nga xam ne askan wi moom lay jànkonteel ñi nga xam ne nag ñooy opposition bi ñoom Yewwi ak ñoom Wallu nee nañu dinañu taxawal ab proposition de loi boo xam ne dañuy supprimer li nga xam ne mooy au conseil des collectivités territoriales ñi nga xam ne nag ñooy waa coalition Yewwi Askan yi ak Wallu ñoom démb daat nañu leeral tamit ne recours bi nga xam ne waxoon nañu ko ci conseil constitutionnel ngir nag ŋàññi ndëngte gi nga xam ne moo am ci élection législative yi ñoom dañu ko mujjee bàyyi ki nga xam ne nag mooy Cheikh Tidiane Youma ñoom nee nañu boycott boycotté wuñ sax yi waaye nag li nga xam ne ñoom waxoon nañu ko loole la ñuy wëya la ndax nag ci seenu programme bi bi ñuy campagne ci yi dañoo waxoon ne bu ñu amee majorité ci assemblée nationale dañuy supprimer li nga xam ne mooy au conseil des collectivités territoriales comme nag ñoom nee nañu ñoom ñoo ko waxoon bu ñu demee nag ba nga xam ne génn nañ ci élection yi mënutu ñoo taxaw naan dañuy bokk ci institution boo xam ne ñoom dañu ko ŋàññee ba tey ci journal bi nee na Cheikh Alassane Sène moom rek moo dugal li nga xam ne mooy ab recours ca juróom-ñaari sachet ngir nag ñaawlu ndëngate gi nga xam ne moo am ci élection yi yéen kaay gi gi di alerte ñu xëy fekk fa Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké démb moom tam yëkkati ay kàddu ca ndaje ma nga xam ne yeey wàllu ñoo ngi ko doon amal nee na askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Touba ak bëgguñu ko ndax ci élection yi lu toll si juróom benn téeméer ak juróom benn cay bureau de vote yi nga xam ne moo nekk ci commune bu Touba yépp Macky Sall dañ ko faa gagné yéene kaay gi di Le Quotidien nee na askan wi du bokk ci élection ACCT yi waaye tamit wàllu du ñi nga xam ne ñooy waa gëm sa bopp ñoom tim nee nañu duñ si bokk boo xam ne yàq xaalis sàkko mooy ñu daal di koy supprimer journalu Madiambal Diagne bi di la Quotidien nee na Benno Bokk Yaakaar ak naataange bu Cheikh Alassane Sène ñoom ñooy bokk ci élection ACCT yi yéen kaay gi di Source A xëy di ko fàttali bokk gis-gis bu Pape Diop nee na mooy coalition boo xam ne ma ngi ci opposition bi ba léegi wax a gudd leer ci lu jëm ci élection ACCT yi yéen kaay gi di enquête nee na ñi nga xam ne ñooy waa PDS am nañu lu toll ci ñaar fukk ak ñeent ci ay député lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukki junni ci ay baat la am ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn loolee moo tax journal bi di ko càmbara nee na ñi nga xam ne ñooy waa PDS jamono ji nag suqaliku nañ bu baax a baax yéen kaay gi de la sa nee na Pape Diop mi jiite bokk gis-gisa jamono ji xiini miina yi bëri na ci loola waaye nag Pape Diop tey jii dina yey yàbbi dina létt nit ñi wala mu firi nit ñi maanaam Pape Diop dina wax ci ban kan la Pape Diop jëma mbaadu Pape Diop dafa bëgg dem ca Macky Sall loolee ab laaj la yéen kaay gi de l'Observateur nee na en tout cas li am ba de sala muy Pape Diop tey jii dina tànn ci ban kan lay far yéen kaay gi di ñu koy fekk fa Abdoul Mbaye mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon premier ministre bu Sénégal nee na au conseil des collectivités territoriales maanaam ay caaxaan la ndax ay milliards yi milliards yi milliards la ñu say dugal te amul benn njëriña clientèle politique loole rek moo ko tax a jóg yéen kaay gi di critique nee na lu jëm ci wàllum retrouvailles famille libérale gars yi ñoo ngi koy wax waaye nag loolee ak naxaata la Macky Sall bu demee ba jékkul dina xool nan lay jékkandikoo yéen kaay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal ñoom nag ñàkk bokk gi nga xam ne ñàkk nañu ko bokk ci élection au conseil des collectivités territoriales ak ñàkk déposer recours ci conseil constitutionnel loole nag ñaari décision yoo xam ne yu politique dëgg la te nag loole rupture la si gars yi di wane yéen kaay gi di réew ñu ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu hôpital Dantec fukki fan ak juróoma ci weeru ut la ñu koy tëj waaye nag ñi nga xam ne ñoo feebar nekk fa ak ñi seen mbokk feebar ak ñiy fajo ñoo ngi ci ay xiin mii ne maanaam jaaxle gu mat sëkk ci la ñu nekk yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na hôpital Dantec ba léegi pënd ndax ñi nga xam ñooy liggéeykat yi dañoo njort ne ñetti hectares yi nga xam ne bëgg nañu koo jaayee loole ay kilifa ñoo dil seenub di la ngir nag séddoo xaalis ba yéen kaay gi di alerte nee na hôpital Dantec pièce détachée la ñu ko def enquête yéen kaay nee na gaawanto précipitation parax-paraxee gi nga xam ne moom la ñuy def hôpital Dantec jamono ji lan moo ko waral ak lan moo ko fi jar à kii la fóota loole la journal bi xëy fësal ci xëtamu njëkk yéen kaay gi di las nee na boo muy tuulee musiba ma dina amaat ca Chine ndax am na ab virus bu bees boo xam feeñ na ca diwaanu Chine yéenekaay gi di A jàpp gi nga xam ne jàpp nañu ko Ousmane Diagne bi nga xam ne mooy coordonnateur mafia kacci kacci loole nag naqari na bu baax a baax Seydi Gassama mi nga xam ne moo jiite Amnesty International section Sénégal moom Seydi Gassama nee na division de fausse nouvelle bi nga xam ne moom la procureur di wax ne moom la ñu toppee Ousmane Diagne loolee tegewul fenn lu procureur fabriqué la moom Seydi Gassama nee na lu jëm ci wàllum réseaux sociaux yi Macky Sall bay boobu noppal boppam ngir nag mu daal di koy réglé dina ko jafe lool maanaam Chine moo ñu ëpp doole ak Arabie Saoudite ak ñi nga xam ne ñooy Russie ci ñooñee ngir nag ñu andi ak jubbante ci so sociaux yi lu ne ñoo ngi ko ciy daj ba léegi ne amaguñu ci ndam Macky Sall xaalis bi nga xam ne moom lay jël di ko jox lobby internationaux yi ngir nag parfaire image am ngir nag defaraat image am loolee mënoon naa ñàkk mënoon naa jël xaalis boobu maanaam defar ci réew mi kaddu Seydi Gassama la ndax nee na Macky Sall xaalis bu bare bare bare la Macky yi jël xaalis boobee bu ko Macky Sall jëlee lobby internationaux yi la koy la koy jox ngir nag maanaam ñu daal di defar image am yéen kay gi di ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy ñuy xeex lu jëm ci wàllum drogue ca diwaanu Ngor dafa am kenn koo xam ne dañu ko fa bëggoon a teg loxo ab dealer trafiquant de drogue waaye askan wa nga xam ne ñoo fa nekk ñenn si ñoom nag ñoo lànk ba tëdd sa naaj waa am na ñaari complice ñoo xam ne ñoom la ñuy mujjee teg loxo atte nañu leen sax sa tribunalum Dakar kenn ki tëj nañ ko ñaari ati kaso kenn ki ñetti weer yéen kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibar naan ñu mbaa Fass écurie Fass dafay waaj a tas ginnaaw bi Gris Bordeaux amee ab jëli ci kanamu Balla Gaye numéro 2 ndax Abdou Gueye mi nga xam ne mooy directeur technique bu Fass moom nag nee